ami internet yu Dakar Buzz TV dal leen ak jàmm bokk na ci lu ñu leen nama faram fàcceel ci seen ay xibaar njiitu réew mi président Macky Sall ma ne woon ndiki tey jële ci rek diwaanu Tiwaawan ngir rek amal fa ab ziar ci gàmmu gi waaye itam kàddu yi mu fa yëkkati dinañ ca dikkat ak yéen coowal Kaliphone ak Adja Thiara Diaw la fa rusandi itam danañ leen ko baaxee ci biir xabaar yi Binte Diallo ma bawoo ca Guinée ñëw Ndakaaru am fi nekkaale bàyyi fan ak boroom kër ak benn bant la yoon dogal ci moom itam danañ ca dikkat ak yéen ci biir biir xibaar yi nees kiis bàkk ba jëpp ma daal di leen koy faram fàcceel lu sax ci xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex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

ñaari autoroute la daal di dikk waa Tiwaawan moom njiitu réew mi président Macky Sall ginnaaw ziar ga mu fa doon a amal ci wàccaay gàmmu gi nag foofee ca dëkk bu sell wa ci loolu moom njiitu réew mi mu ngi leen di xamal nag ñoom ñi la rek di waa kër Seydi El Hadji Malick la ñu doon sàkku ci moom dana leen ko daal di defaral ci lu dul yàgg dara nag liggéey ba dina daal di tàmbale autoroute ba dina jóge foofee ca diwaanu rek noota guy jaar di jaar ci fi nga xamante ne moo di Juma ba noppi rek jëm foofee ca diwaanu Louga loolee nag doon li nga xamante ne ñu ngi ko doon yàgg sàpp njiitu réew mi président Macky Sall ngir rek mu daal leen koy defal foofee ci diwaanu Tiwaawan mu ngi mel ne nag daal ne nag addu ci boobu la mbir di leen xamal nag ne daal du yàgg dara ñu daal di door liggéey wa Aïcha Dramé daal di ne nag jugee ca ITV gannaaw Adama Anouchka Ba moom Aïcha Dramé liggéey ca rek foofee ca e ci rek diiru ñaari at doon fa def émission bu leen di nag laalal basang teewlu Ramadan laata mi dem nag message bu ndaw yaram bi la daal daal di nag bàyyil ñi nga xamante ne ñoom la bokkaloon rek bërëbu liggéeyukaay di leen xam ne nag ne daal seen bërëb liggéeyukaay boobee ku ci nekk ci ñoom nak sa xam-xam moo la fa daal di yóbbu rëcciwul nag benn yoon jotaay yi nga xamante ne daal sekkoon na ko ak ñoom rawatina nag émission ya nga xamante ne daal na ko doon def jàngat bu bëree bëri nak la daal di def diir bi nga xamante ne nag mu nga doon liggéey ak ñoom ci ñaari at yi yooyu la kàddu la daal di yëkkati moom Aïcha Dramé daal di koy jagle rek li nga xamante ne daal jumtukaay foofee ca eMédia bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu Sénégal Kalifa nag procureur daal nañu nag jàkkaarloo waat tey jëlee ci lu ñeel nag la ñu koy toppee ci digganteem ak uh, mannequin boobee di Adja Thiara Diaw moom nag mannequin bi leen waroon teew sax foofee ca tribunal bu Ndakaaru mujjul nak daal di ñëw mu nga ca hôpital principal ca service psychiatrique bu ñu sukkandikoo ci nga xamante ne nag moo di avocat wam uh, coups et blessures la ñuy toppee ki nga xamante ne moo di Kaliphone gannaaw bi nga xamante ne daal uh, nañ koy écarté dóor yi ko Kaliphone dóor nag métti lool moo waral nag génnagul rek hôpital boobaak léegi moom Kaliphone dellusiwaat nag ci kanamu procureur di xam ne ni daal lépp loo xamante ne nag moom la ñu koy toppee nangu na ni daal moo ko def waaye nag def ko ndax dafa bon wala soxor waaye fekk na ni daal Adja Thiara Diaw fi mu ko téewoon métti na loolu taxoon nag ay avocat moom Kaliphone di ko ñaanal li nga xamante ni daal moo di liberté provisoire waaye nag verdict ba ñu ngi koy xaarandil fukki fan ak ñett ci weer wi nga xamante ne moom la ñu nekk ngir rek ñu xool fan la wànneen diw mu jékki gëtëm ba tey ci lu ñeel boobu la mbir ki nga xamante ne nag moo ci doonoon témoin di Ahmed Cissé li nga xamante ne moom la wax ci kanamu procureur de la république dina daal fekkee na bi mu ñëwee fekk na daal kii di xale bu jigéen ba kanamam gën néewi na te it gémmiñ gaa nga doon na ci waaye xamul ndax dóor yi ko Kaliphone saal dóor moo waral li ni mel ndax moom mi itam xale bu jigéen bi ëlbatiku woon na doon ko rek daal di rek agressé taxul da koo dóor mu daal di fayu ba tey ci biir tribunal bu Ndakaaru yoroon nag après photo boo xamante ne daal jiitalukaay bi nga xamante ne moom mannequin bi moom la soloon jour bu muy gisante ki nga xamante ne daal moo di Kaliphone Sall moom xotteeku yu bari ci loolee nag mu ngi xam ne daal gannaaw bu ñu lijjantee li nga xamante ne moo di coup blessure volontaire bi ñuy toppee Kaliphone Sall ñoom ñi leen nag dinañ déposé waat beneen plainte boo xamante ne daal dina doon tentative de viol ak li nga xamante ne daal moo di séquestration bu ñu sukkandikoo ba tey ci moom avocat bu Adji Thiara Diaw mbir ya duñu ko bàyyi bu sedd danañ ko topp ba fu mu yam neex la daal di dénk ñi nga xamante ne ñoo di taskatu xabaar yi BBC ci lu ñeel ñu gëj koo gis nag ci écran bi daal na ci xam ne ni daal li ko waral di ab congé boo xamante ne nag moom la jël moo tax nag ñu gëj ko teg bët ci rek foofee ci rek 2STV li waral nag itam ñu gëj koo gis mu daal di joué ci groupe bu Soleil Levant itam daal na ci dikkaat moom BBC mu nga xam ne nag ne daal jotewul dara ak ñi nga xamante ne ñoo di waa groupe Soleil Levant te bu ñu ko soxlawee elle est disponible dinañu ko gisaat nag lu dul yàgg dara foofee ca 2STV mu dina fa amal ab retour noonu la ko xamle moom nag actrice boobu Fatoumata bu Fouta Tampi di nga xamante ne nag moom la def di ab live di ca yàq lu mel ni xamee doomam bu jigéen ba nag di nag ki nga xamante ne daal moo di di ko xamal nag ci anam ya mu juddoo tax nag ñu bëri ci ay rek jege ñaaleem doon ko woo ngir mu arrêté boobu la mu ne leen nag du ca ndax nag li nga xamante ne moom la ko doomam bu jigéen bi lee di yàq ci réseaux sociaux yi doon na ko métti te xamul rek ci moom fan la suqikoo kon nag faaw mu wax ko ko ngir rek mu daal di arrêté yi nga xamante ne daal moom lay def boobu li live mu def nag moom Fatoumata bu Fouta Tampi nag internet yu bari daal di ko ciy mare nag di ko xam ne daal euh, dund nga nag ba yegg si fii te kenn xamul nag say jaar-jaar yow mi ne nag yaa toog ci réseaux sociaux yi di xamal nit ñi loo xamante ne daal xamuñ ko woon ci yow wutal nga nag sa doom xas boo xamante ne duñu ko bàyyi abadan daay man dapp ci loolu moom Fatoumata bu Fouta Tampi ba tey ci boobu li live mu ngay sant ko gërëm ki nga xam xamante ne daal moo di rakk ci ki nga xamante ni moo di doomam di caba di xam ne nag ne daal doomam boobee eh, xasu ko saagawu ko te ci ay bëgg-bëggam lay dox eh, kon kookee rek mënul yem ak ki nga xamante ni daal moo di doomam ja caba moom doomam joojee mu daal di présenté askanu Sénégal ci live ga mu doon def eh, Fatoumata Fouta Tampi mu ngay xam ne nag ne jooyul benn yoon doom ndax nag lu mu bëgg xale boobee mu nga ko cee defal tey wuy ci waawam élément division spéciale de cybercriminalité daal dinañuy nag teg loxo ba noppi defere leen tiktoker yi di nag ki nga xamante ne moo di liw Faramareen ak Prince Jackson ki leen porte plainte di nag ki nga xamante ne daal moo di Ndeye Fatou Diouf wala nag jaaga bu Papa Thione nga xamante ne daal moo di seen doom di Seydina Alioune Seck li ko waral nag dina ñaari tiktoker yi dañu nag def ab vidéo di ca xas nag ñi nga xamante ne daal ñoo di famille cekkeen waaye itam di ca rekk lu ñaaw dem si yàlla sa Papa Thione Balago Seck E ci fàttali ci rek mois de juillet bi nga xamante ne nag moom la ñu weesu li ñu teg loxo ci ay doomi aadama yoo xamante ne daal dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ak yëkkati ay kàddu yu tegginewul di ko teg ci ay doomu aadama bëri na lool tax nag ñu mun ci lim ñaar ñi nga xamante ne daal moo di ak keneen ki nga xamante ne daal moo di jaaz ci loolee ñoom ñaar ñi leen di akkaat ak jaaz li nga xamante ne moom lañ di toppee di nag yëkkati ay kàddu yu tegginewul lool di ko teg nag ci njiitu réew mi président Macky Sall Binta Diallo di ab ak Guinée yeen bàyyi doom ak borom kër foofee ci diwaanu Guinée ñëw fii ci diwaanu Ndakaaru dëkk ak góor ci diiru ñaari at nag mu koy jabaroo dem ba koy nag fiire moom mi nga xamante ne moom la nekkaloon nag di wuyu ci Sadio Diallo gannaaw ba mu ko bettee nag muy wuyu téléphone moom li ma jàpp daal moom Sadio Diallo dina nag corom bi la dafa am yeneen i nekkaale ca la meree nag daal di nangu téléphone ba mu yoroon ak pochette bi nga xamante ne daal defoon na ci lu toll deux cent mille francs ci suñuy koppar ba noppi nag bàyyi ko ba muy nelaw mu daal di koy photo ci loo xamante daal solul yére daal di koy nag publier war noppi rek envoyé ko ñi nga xamante ne daal ñoo di ay contact gu xale bu jigéen bi moom Binta Diallo toll nag ci ñaax fukki at nekkaalem ba woon di Sadio Diallo daal di nay nekk nekk vigile fii ci diwaanu Ndakaaru ñoom ñaar ñi la nag ñoo daal di dëkk ci diiru ñaari at ak léegi mu ngay xamal moom Sadio Diallo ne nag amul lu mu doon defalul ki nga xamante ne daal moo di xale bu jigéen boobu ci nag la nga xamante ne moom lañ koy toppee di nag divulgation de données personnelles yoon daal dina koy daan ñaari atu kaso yoo xamante ne nag itam dina ko tëdd ci duru juróom-benn weer pochette ba nga ne nag moom la jëloon ci moom bu ñu sukkandikoo ci nga xamante ne nag moo di Binta Diallo ma doonoon coro mu nga xam ne nag ne daal xaalisu natt moo ca nekkoon mu dellu si waat di xamal ñi nga xamante ne ñoo di attakat yi moom Sadio Diallo ma nga xamante ne daal moo fàttoon ki nga xamante ne moo di Binta Diallo ba noppi doon ko jabaroo dina nag lépp loo xamante ne xew na seen diggante dara yóbbewu ko lu dul fiir ci loolee nag mu ngay ñaan njéggal ngir rek ñu daal di koy baal ba noppi rek mu daal di mën a delluwaat ci liggéeyam amee internet yu Dakar Buzz TV fii la ñuy yem ak yenn ci seen ay xibaar di leen jox daje ba suba incha allah waaye bu leen fàtte benn yoon abonné wu ci suñu page YouTube bi di Dakar Buzz TV.